asalaamualeykum wa rahmatullah soppe yi bàyyi xel seen télévision Tektal TV ñu dikk ak yéen ci naafila guddi juróom-ñetteel gi ci weeru koor sopp nañu ko ci julli ñaari rakan rakan bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng xul huwallaahu ahad fukki yoon ak ñaar fu ci nekk des na ko ca bindal tuyaabay jaamu yàlla junni at te dana mel ne it ku leel woddu mandal juróom ñaar fukki at xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yépp eh, tey dina mel ne ku goreel junni jaam te bu ñaanee xaajoom yàlla suñu boroom nangu ko bés bu dekkee dana dekkiwaale ak leer te buy jéggi siraat dafay mel ni ak melax ak yeneen ak yeneen soppe yi ku ci bëgg yeneen ni leeral nga dellu ci xuraton ay ni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 143